nekk euh, rappel bu am solo ah yal nañu borom bi yóbbuwaat rek ba ñu dundaat ay moment yu mel noonu ah donc euh, waaye borom bi xare ko aljana surtout mu ngi noonu may xolu muñ ñi nga xamante ne ñoonu njabootam donc euh, comme jëli nañu actualité Aliou Sow ñu dugg ci waxtaan bi tey ñaa ngi ko nar amal ci ñaari ponk euh, premier bi di concertation nationale euh, un dialogue pour trois candidatures Euh, deuxième bi di Sénégal des violences la fracture sociale nga commencé peut-être par le premier di concertation nationale un dialogue pour trois candidatures loo bëgg a wax foofu waaw mooy xam nga depuis que, que le président Macky Sall proposer euh, donc euh, euh dialogue pour euh, euh, apaiser les tensions et puis trouver des solutions par rapport au prochaines ou à la prochaine élection présidentielle. Mm-hmm. et eh ben bon dafa am ñoo xam ne nangu nañu am ñoo xam ne nanguwuñu. Mm-hmm. alors ma yeewu suba teel sama xel nekk ci maanaam mais man dialogue bi bon finalement ban njëriñ la la nar a am. Mm-hmm. après may xool di xool di xool ma ne mais bon xam nga doo mën a nekk ci seen xel. Euh, pour pour da ngay jëm réfléchir rek mais doo lu ñuy xaw ma mënoo am gént euh, mënoo am sa gént sa gént xam sa sa gént xam sa géntu morom mhm. donc donc donc ma ma ma ma ne mais dinaa jéem a seet quand même euh, jéem a def <laughs> foofu nga génn <laughs> gisaane <laughs> waaw jéem a def gisaane tuuti pour xool finalement ko euh, li Macky Sall nar a commencé tey parce que mooy mooy mooy mooy initier affaire bi après bàyyi gars yi continuer mm-hmm. euh, pour xool ñoom nan la ñuy war a mën a def pour euh, déggoo ci ay kàddu mm-hmm. mais finalement bay xalaat di xalaat mais man ma ne mais finalement est-ce que bon évidemment avenir nu donnera peut-être raison ou pas pas forcément mm. mais est-ce que du du du du du du lii defuñu dialogue bi rek pour pour ñetti candidature le président Sall. oui may sa Wade ak waa ji ne moom naa bokk rek café wala wala wala bu moom na tàng rek. <laughs> Khalifa Sall na na na na bokk rek. <laughs> Euh, bon xam nga loolu boo koy xalaat da nga naan xel xel mun na ko nangu parce que gisuma lu euh, a priori lu Karim Wade mën a d'accord ak euh, Macky Sall <laughs> depuis sa gestion dix ans yi fukki at yi d'accord mënuma gis aussi lu lu Macky Sall Khalifa Sall mën a d'accord dans sa gestion politique mm. ak Macky Sall. Euh, ci fukki at yi mm-hmm. donc peut-être que ñoom leen rek moo leen intéressé léegi euh, au final mooy fexe ba ñoom mën a bokk pour espérer d'abord euh, Khalifa Sall pour avoir une dernière candidature par rapport à son âge né en je crois six waaw yooyu cinquante six donc ça fait quand même soixante huit ans mm-hmm. yaa ngi dégg te te peut-être que nii day doon day mun na ne bi mooy. dernière chance waaw kii waaw mm-hmm. eh aussi at at d'exil yi mu toog. au Qatar ak yi fi jotoon a xew yëpp ak li ñu ko laajoon euh, ba nga xam ne moom moo waroon ànd ak euh, une contrainte euh, par corps au cas où il ne paierait pas mooy cette somme de milliards donc yooyu yëpp peut-être bu ñu ko gën lijjantee ba waxtaan ci ba juboo et eh ben xëy na peut-être que dina ko permetre moom tam mu ñëw waaw yàlla président Macky Sall aussi <laughs> moom it dans sa tête il se dit nii bon am na lu ma waxoon euh, changé na avis léegi coow gi bari

moom buggul. moom amnistie dafa bëgg ñu ñu ñu réviser waat procès bi defaat beneen procès mais est-ce que loolu waxu kaw kese la et que au final euh, dinañ ko convaincre ne ko bokkal kese. je pense si peut-être que mun na ko wax nii mais après mun na ne bon écoute comme sama parti ñoo décidé. bon d' accord naa euh, bon d' accord pas plus de révision comme ni mu ko bëggee woon comme lii la ñu am ok nañ dem que moom tamit l' essentiel c' participer man defe naa ne man defe naa ne yow li nga wax moo moom moo taxaw parce que le fait parti bi PDS bokk mhm. dem di toog ci dialogue bi mhm. dégg nga mhm. euh, Khalifa dem di toog ci euh, kii bi dialogue bi ce qui veut dire ñoom lijjanti wuñu affaire troisième mandat. fee lañ teg. ñoom xam la ñuy lijjanti. ñaari yëf nañ bokk. naa bokk bi. naa waaw naa bokk bi ñoom boo xam parce que euh, euh, euh, il faut ngeen xam ne affaire bi ñetti kii la ñetti maanaam force la. Mhm. ñetti force politique la. assemblée nationale quatre quatre quatre quatre excuse moi merci. Mhm. quatre la mhm. benn bi. moom mooy PDS beneen bi moom mooy ñoom Khalifa beneen bi moom mooy ñoom Sonko. benn bi moom mooy euh, bokk euh, ñoom euh, benn bokk yaakaar. Mhm. ñoom Sonko ak moom mooy ñoom Déthié ñoom ñëpp bokkuñu. Hmm. léegi ñett ñii ñetti ñii te booy xoolaat dans cette ci ci kii bi ci mouvance wu ci <coughs> mooy waa F24. F24 il y a plusieurs candidats dedans. Hmm. 165 partis politiques. voilà y' a plusieurs candidats candidats. oui je veux dire ça regroupe beaucoup de partis politiques. voilà y' a plusieurs candidats. Mm. yoo xam ne tey jii ñoom quel que soit. man quel soit luy am ci euh, kii bi euh, kii bi troisième mandat woo ñàkkoo nangam ñooñu dañuy dem élection. Mm. parce que foofu gis naa ca euh, kii Gakou gis naa fa Bougane Gueye. Mm. gis naa fa Déthié Fall. gis ah, naa ah. ñëpp ils sont des candidats. Boubacar Camara et autres. ñoom ba de. Mimi Touré. Mimi Touré <laughs> dégg nga Boubacar Camara dégg nga ces gens là ñooñu ñoom quel soit luy am fële. ñoom benn affaire la ñuy lijjanti. ñoom it naa bokk waaw. mais eh, ñaar la ñuy lijjanti de. lan naa bokk. na Sonko bu diw bokkul. waaw bu diw bokkul. c'est nag dinaa la wax. bu diw euh, dinaa la wax fii benn wax boo xam ne du neex. ay bagage su diw. est-ce que ma wax la benn affaire ay bagage su diw. est ma wax la. mën ma may doole. man waaw. yàlla na ma. Euh, loolu la ñuy lijjanti est-ce que du du moom du bokk ñun ñooy bokk la ñuy lijjanti ñoom. et eh, Salma. kaay dama lay wax benn affaire. non est xam nga benn affaire. xam nga ma tuuti dama lay xam ne moo am. sama xalaat la. ak dégg-dégg yi ma am. xam nga nag man politique yi bëgguma sax di ci dugg di kii. Mm-hmm. mais am naa ci ay nit. mais baax na di xalaat. mais. lenn dinaa la ko wax. Mhm. gis nga euh, euh, euh, gis nga ñii. Mhm. ñi nekk ci force boobu. Mhm. mooy ñi nga xam ne da d'accord ñu pour dialogue am. waaw lenn naa la ko ci waa ñu ci bare. Sonko bañ a bokk da leen arrangé man maa la wax. loolu moo tax ma ne la ñaar la eh. ko. Sonko bañ a bokk. ñooñu ça fait ñooñu daf leen arrangé. te ñoom bu doon seen sagoon ni ni affaire bi demee nii Sonko bañ a bokk moom moo leen di arrangé et alors que ñoom ñu ngi nekk ci côté bo euh, euh, ci mais waa waa P boo boo xoolee waa PDS lii warul bett kenn parce que euh, PDS ak waa Benno réeroo wuñu boo gisee li xew assemblée nationale wallu ak ñi nga xam ne ñii nii. Hmm. Eh, dañuy eh, cinéma rek waaye nag. amul waaw. pour pour booy bi sa sa rek ngay défendre même pour booy bi ñëw benn. principalement c'est ça. li si des yëpp saa mën nañ ko lijjanti. Mm. waaye na booy bi yegg si rek. Ah, waaw waaw mais est nag ñu jéem a conscient. Mm-hmm. xam ne fii nii réew mi noo seulement te daf fay jeex gënul. parce que nag dem ci dialogue ba lijjante waxtaan wax ba pare mais askan bi fi mu nekk nii seen dank fanaanal ñu ngi ko téye de. mooy maanaam mm-hmm. moom du bokk ñun ñooy bokk. est que jotu jotul ñu jëloon loolu nag en compte. leeral ko quoi mm-hmm. te bàyyi naxante bi. duñ ko lijjanti. lu tax ñu koy lijjanti. pourquoi ñoom dañu bëgg nekk candidat. kan bu tax ñu koy lijjanti. ñan ñan ñoo bëgg a nekk xanaa ñoom bëgguñ dara ah, <laughs> mais. Euh, euh, euh, ñoom ñoom ñoom fi Macky Sall jaar ba nekk président ñoom tam ñoom foofu lañu bëgg a jaaree. c'est li jëntiwuñu leneen ci dialogue balaa xam nga moo tax bi tey dañuy amal contre dialogue ñoom waaw loolu laa wax waaw waaw xam na contre dialogue bu war a am au ñi war a dem officiellement ci dialogue balaay wax ñooñu est ce que nekkuñu di nax seen bopp toog waxtaan pour après du jariñ dara parce que le peuple est conscient est ce que xam la muy différence eh, c'est que nag c'est que nag le li nga wax non billaahi ñoom dañu foog ne dañuy nax fekk xolal ñi ngay nax xam nañ ba pare ñan la ñuy demal non c'est que yow li nga wax li nga wax boo xoolaatee li xew euh, depuis Diouf Wade ak Macky boo xoolaatee élection yi ki ma euh, maanaam euh, kii changement yi am. Mhm. damay ànd ak yow. Mm. parce que peuple bi. le peuple est mûr. est mûr. Mhm. dina toog xaar. c'est que Salma Salma la Salma lañ naxul mais ñoom ñeneen ñi ngi leen di nax. est-ce que ñu ngi leen di nax tu penses. Ah, kon est-ce que xam la mooy différence entre F24 ak ñii. Mm-hmm. ñii di dem mm-hmm. dialogue. Mm-hmm. <laughs> mooy ñi ci biir F24 dafa am lu ñu xam. maanaam taxaw di xaar pour récupérer les morceaux pour récupérer les les pas morceaux dafa am dafa am dafa lu ñu soxla xam nga F24 ak ñi ñi bokkoon f ba pare dem si dialogue bi ñi bokkoon fële. ba pare ne dañuy dem si dialogue bi xam nga amuñu benn différence ñoom bëgguñu Macky Sall bokk. ñi ñi nekkoon ci F24 laa wax muy Khalifa non benn peut-être bokk euh, kii bokk ci euh, nu mu tudd euh, waa wàllu bokkuñu si. mais principalement waa taxaw ñoom li ñuy xeex c'est exactement la même chose que waaye ci que ñi dem F24 waaye yow yi nekk F24 mooy Macky Sall bañ a bokk. Mm. mais pourquoi ñu pourquoi ñu dem. pourquoi ñoom ci seen principe. Mm. Macky Sall warul bokk. warul bokk normalement moom du bokk léegi mais lu tax lu tam ñu tax ñu dem ci waaw d'accord mais li officiel xam nga ñun nag mënuñu liir ci bopp nit ki parce que yaa ngi naan F24 lii la ñuy wane mais dañuy clignoter gauche jàdd droite d'accord. non ci biir mais. yaa ngi jàngat loolu mais officiellement lu ñu wane mooy demuñu ci dialogue bi moom du bokk. mais xam nga demuñu ci dialogue bi waa F24. parce que benn condition kese la ñu mooy na mooy seen exigence loolu bu ñu ko bu ko waxee ba pare après ñu dem toog bu ñu toogee ñoom ci seen biir ñu waxtaan sóoraale ni Macky Sall lu ci bokk. Mhm. waaye Macky moom nee na loolu dañu si dul sax waxtaan. léegi nag dialogue bi tamit est-ce que on temps on perd de l'argent après du loolu laa bëggoon laaj Aline Sow parce que comme euh, li nga wax léegi ci euh, euh, dialogue bi ak Macky Sall ni muy doxalee fim ne nii mhm. est-ce que opposition bi wala F24 war nañu toog sax di poser la question wala di xaar Macky Sall prononcé wu ci troisième mandat ndax nag ni muy doxalee nii doxalee ni kuy campagne la. Ah. Ablaye Sow wër na dëkk bi yëpp bët ki dem. ay ñooñam ñu ngi wër fu ne ku ne di wax deuxième quinquennat bu doon ko ci nekk li muy wax moom arrangé wu ko mhm. incha allah dàq ndax ñi waxoon du bokk dàq na leen mais ñi nga xam ne ñoo fa des di wax loo xam ne tey jii dàqu leen est-ce que du wane ni rek euh, fas na yéene bokk mhm. wala looloo nekk ci xelam ndax nag parti gi yàgg na te amul dara loo xam ne wax na ko euh, lu nit mën a dégg euh, kii Fatima mhm. Macky Sall dafay bokk dafay bokk moom warul bokk non day déposé moom ah dina déposé ah oui tu en es ba xam nga mooy juge bi nga xam ne fekkewul fi ñuy reyee fekkeewul fi ñuy reyee mais selon éléments yi ñu ko jox il a l'intime conviction mm-hmm. intime conviction ni moom moo rey parce que détails yi ñu ko jox la donte fekkeew ko donte amul euh, preuve ni euh, euh, kii kii ñuy accusé ni de de de meurtre kooku mm-hmm. kooku kooku kooku fekkewuñu kenn fekkewul fi muy reyee mm-hmm. waaye éléments yi ñu ko jox. parce que mhm. heure bi waa ji ñëw euh, euh, euh, ki mu doon waxal relation yi mu amoon ak ki ñu rey. Mhm. et cetera ci yooyu la dajale jour bi muy dernier jour bi la mujjee gis moom moom mujjee gis ki ñu rey moom la meurtrier. Mhm. donc yooyu yëpp faisant dajale na ko ak même heure bi que heure boobu période boobu xool nañu portable à peu près soril woon kër gi ñu rey kër gi ñu reyee nit kooku détail yooyu la day xam nga fekkewul. <laughs> maa ngi gaañu est est juge boo xam ne non métaphore laay def ni day mel ni juge boo xam ne dafa taxaw ñu ne ko euh, diw Masamba moo rey moo rey moo rey moo moo rey faatu hmm. juge bi ñëw taxaw xool ñuy poser ay questions kenn amul preuve ni trace def nañu lépp mais gisuñu benn trace ni Masamba hmm. moom moo rey faatu amul preuve comme dossier ah, Adji Sarr comme Adji Sarr bi rek zéro preuve yow say wax tey nga wax lii suba nga wax lee zéro preuve boobu boobu wóorul loolu c'est jamais boobu boobu xaar leen amul preuve kenn xamul non boobu yooyu non bàyyi mu tëmb rek nag xarit amul preuve amul preuve bàyyi mu sedd rek euh, mais on sait jamais mais kenn xamul <laughs> non mais procès lañu wax. procès ba jeex na verdict ba non non attends. dañuy suturaat ça. ñamoo Samba comme disait la la une pomme et demi là ki toll nii nee na dañ koy suturaal. <laughs> kaay dama xoolal nañ waxante dëgg on au Sénégal benn affaire dafa am gis nga ñaari nit bu ñu seqee ñoom ñaar rek ñoo xam. ñoom ñaar ak yàlla mhm. nañu waxante dëgg. waa léegi. de na attends attends nañu sekk nañu sekk lépp xoolal nañu nañu sekk d'accord doo dégg doo mais dama ne ma xam nga en matière criminelle preuve lañu soxla du ay wax de kon yow dara leer na suba Fatima mii mën eh, naa toog eh, fii jiñ la ko du eh, mujj fenn sans preuve ñaata procès moo am ana kii erreur judiciaire am ci ñaata procès moo am dans le monde erreur judiciaire am ci waaw ci la c'est quoi le rapport xam nga yow tu parles de preuve mm-hmm. jamais. en matière criminelle. waaw loolu laa dama nekk preuve mënu ci ñàkk doo dégg lu ma laa. Ah, gars yi indi la xoolal dañ lay indil tegal la. Hmm. tegal la. teg lan hmm. tegal la preuve. preuve waaw waaw xool bu ñu la tegalee preuve. Hmm. foo kooku kooku kooku nga xam ne preuve leer affaire bi day leer nii. mais xool duñ ko jox dëgg jox ko keneen. waaw léegi san preuve loolu non non léegi sans preuve moom incha allah zéro chance. pour ñu jox ko preuve non on parle ici. waaw léegi la la mooy preuve. Ah. lan mooy preuve. xam nga lan mooy ah, preuve. ku ne yor naa te yoruma ñoom ne woon nañ ah. yor nañ vidéo yor nañ audio certificat médical boobu wane na ni ma comme de Ousmane Sonko nañ ko wax te dee dara amu fa lii moo xew mais xam nga loolu. <laughs> lii laa wax man moom mi ngi ci ginnaaw ah, <laughs> d'accord mais man dama ne. kenn xamul. ku dul yàlla waaw. nga dundaale yaakaar rek kon. mun na sax xool mun na mais preuve. preuve mun a nekk façon bu nekk preuve par témoignage. Mhm. preuve par preuve. témoignage rek dafa daanu. kenn la fa am muy Seynabou Ngom. Ah. ku ko réconforté mais sinon témoignage yëpp c'était contre elle. man lenn moo ma xawoon jaaxal ci. procès nga laalaat beneen point rek ñu ñëwaat ci. Mhm, mhm. du ma ci duggaat sax. Adji Sarr bi muy génn tribunal daw yi réew yi daw. Hmm. loolu preuve la ko. non mais man je koo xam ne yaa ngi jiiñ yaa ngi tegu nga ci loo xam ne ci lu mu wax parce que nee na yor na ay mbir yoo xam ne bu ko génnee wee ñu bàyyi Ousmane Sonko mais pourquoi muy daw ba Françoise Hélène di ko dàqa ji donc yooyu ay preuve garde yëpp non waxuma preuve bi mais daw yi pour lan la mais loolu c'est c'est une première au-delà de daw yi deux ans durant Adji Sarr avait dit que ci téléphone am am na fa ay preuves live bi doon def ak man je rappelle très bien il elle dit. mais est-ce que deux ans durant ngay wax bi bi ci biir jugement pour ñu fa nekkoon quand quand le le président euh, euh, maître El Hadj Diouf avocat Adji Sarr. Hmm. ndax du ñu wane ay yu ñu yenn vidéo yi. Adji maître El Hadj Diouf juge bi ne ko non non non ça serait trop choquant. yow tu penses que Maître El Hadj Diouf dina am une once de vidéo de Ousmane Sonko di bàyyi mu sedd non du ko moom moo koy décider loolu du mais dama ne est-ce que loolu loolu amoon na ci biir tribunal ba pour ñu ko fekkee <coughs> d'accord mu ne moom dama bëggoon ngeen def vidéo yi moom moo ko laaj juge bi comme juge moom mooy décider mm-hmm. mooy président de séance mu ne non non non ce serait trop choquant est-ce que loolu Maître El Hadj Diouf laajte ko est-ce bi tontu na ko loolu. maanaam maître yi nekkoon maître waxal la loolu. non dañ koo filmer mu wax leneen lu utee ak li mu waxoon ci loolu laa la bëggoon wax. mooy wax désinformation dafa xam dama tamit dama ne est léegi ma tontu la foofu. dégg tamit xam nga tamit on parle de preuve tamit eh, est tamit. ci vidéo yooyu. waaw mais mun na bañ a nekk vidéo sax. non non attends waaw waaw d' accord non c' est que xam nga xam nga lan mooy preuve ci ci am man boog man sama xalaat. sama matière criminelle waaw non non non non man boo xam ay. sa xalaat sa preuve rek non preuve sax la preuve quoi la preuve. waaw mais en matière criminelle la. non oh, waaye non déglu ma man man dew. mais ah yéen nag yéen nag ndekete nag sama sama gars yi. non non ah. euh, euh, euh, la notion de preuve. déet non non eh uyu ma. loolu la mooy preuve Alisson ah, Alisson yow may ma. pour un cas de viol. certificat médical. waaw mënu koo weesu preuve. non waaw may ma waaw may ma. waaw d'accord xam nga leneen exemple. léegi seen candidat moo ne. moo ne dara kenn violé ko. y a pas eu de de violence. écran bi ci kees bi la kenn kii wu ko kenn kenn gaañu ko. mais est que a parce que man dégg nga dama ne euh, est-ce que euh, loolu euh, maître El Hadj di wax. vidéo yi Thiamar détourné nañu wax bi léegi ñu. <laughs> kon bàyyi naa waaw waaw kon bàyyi naa kon bàyyi naa. moo fi dugal procès da nga jël da nga jël exemple bu am solo mu réer la ci li nga jël yow. non ah, non li nga wax dafa méngoog loolu. moo loolu moom même sax bu fa certificat médical bi nekkul sax mais bu dee bu dee bu dee euh, vidéo lenn la ñuy wane mooy que man ma nekkee yow di leen di leen forcé ñu koy gis loolu moom man euh, yaakaar naa loolu. problème d'accord fi mu ne nii waxtu bi loolu preuve la ci preuve bi ah ah, ah ah ah ça élément élément de preuve la disons. waxtu bi xoj waaye nag waaye nag. waaye nag toog nii ñu may sama xarit bi nag mu wax tuuti. waaw man euh, sama question parce que dama ne woon su ma amee occasion naa la ko laaj mooy que Pape Djibril Fall. day jooy ak euh, Thierno Alassane Sall. kooku dafa gaaw a jooy baal ko dialogue yi wala. bokk nañ bokkul si dialogue bi neen demul waaw moom neen demul non pa pa Pape Djibril nee na bo bokkul hmm. neen demul neen euh, demul je crois que Thierno Alassane Sall aussi xaw ma mais Thierno de nouvelle moom nee na nee na bokkul aar la ñu bokkoon mais après bi pour élection législative Pape Djibril dafa gaaw a jooy nañ leen ko baal nañ leen avancer eh, man defe naa ne